Vous le réclamiez Le voici. Satisfait de notre premier séminaire de formation à la maîtrise de la prise de parole en public tenu à Dakar en février dernier, vous étiez nombreux à réclamer la prochaine édition. Alors, l'opportunité tant attendue se présente à vous. Ne la ratez pas. Paul Mendier NT Conseil vous donne rendez-vous les 26 et 27 mars 2022 à Dakar pour un séminaire à la fin duquel vous éliminerez votre peur de parler en public. Vous saurez captiver l'attention du public. et bien d'autres compétences en art oratoire. Si vous voulez exceller et impacter votre public, alors réservez votre place et laissez-nous vous transformer en un excellent ak Boy Ndiambour féete leen seen càmmoñ ñoom ñaar ñëpp tànku càmmoñ lañ jiital ñu ngi léegi boo ñaari mbir dañoo ñemente carrière door na Boy Ndiambour door na góor jël na ko Boy Ndiambour soo ko nag carrière jàpp na ñu ngemb carrière jàpp na si ngemb li rasu ndax day jeex jàppante nañ carrière ngi door ci suuf carrière mi ngi door kuuyu dal carrière mi ngi door ndax da ngay dal na laa ilaaha illallaah carrière daan na ko arbitre sifflé na diggante Salmon moom moo nekk suñu càmmoñ meeb na léegi ñu ngi léewtoo ñoom ñaar Salmon a ngi dox ci kaw Salmon ak Armé ñu ngi xeex Armé jël na ko Salmon bañ na mi ngi dóor ci suuf Salmon a ngi dóor Armé ci Salmon moo ñëwoon ginnaaw Armé mi ngi koy fax kat loxo baa ngi ci kaw mi ngi laay lay la ñaari mbër yi cey Salmon Salmon ak Armé Salmon ak ay waay Armé daan na ko Armé daan na ko jël bu rëy diggante Barabara cinquième combat de la soirée ñaari mbër yaa ngi leewtoo Thierry door na laa ilaaha illallah Thierry de Thierry ngi door Thierry door na Barabara Thierry Thierry bo ay Thierry dang ko fanaanal la yor door na ko Barabara ngi dellu ginnaaw laa ilaaha illallah ñii dañuy raak jixaat Thierry borom ngemb lu xonk li Barabara ngemb lu noir blanc xale yi i jixaat eh Thielly jël na ko Thielly ngi door Thielly ngi door Thielly door maa door bu daanu ñaari mbër Barabara ak Thielly ñaari mbër yaa ngi noonu jàppantaan nañ Thielly ngi ñu berkit Thielly mi la ilaha illallah Thielly ngi door Céeli Dabe Njuul be ñëwal tuus ñaari mbër yaa ngi leew Barabara Céeli Céeli à Barabara à gauche Céeli Céeli nga déplacé wu door na droite Seyni jël na tànk bi jël na tànk bi ndax da koy daj da koy daj Seyni daan na ko. Seyni ngay naaw. ñaari xale yaa ngi noonu Moussa Gueye gi. Bass 2 seen ndeyjoor. Xas de seenub ndeyjoor Moussa Guy seenub càmmoñ ñaari mbër yaa ngi noonu ay ñaari xale yi ñaari ñaari espoir yi lambam na ci ñoom yaakaar jël na ko jël na tànk bi ndax dafay na moon ee eh, dal na la ilaha illallah ci Pasteur mi dal na ko mu rëy ndeyjoor ak waa moo njool seenub càmmoñ moo def tent bi ñaari mbër yaa ngi noonu di leewtoo saa waalo mépp na léegi ak waa rasu saa waalo door na léegi duraan leeto aga waami abu wane la aga waami abu wane la ñu ngi leeto aga waam seen gauche saa waalo seen ndeyjoor eh aga waalo li mooy lan doo ban ko say loxo ngay bes def sama xarit bi kenn du yow man lay siyaare di ñëw eh de Gauss Diourane jàppante nañ jàppante nañ Ago abal na ko naax eh doole Ago bëgg na ko taxawal bëgg na ko pàdd <laughs> da koy songale saa waala bañ na da koy songale da koy songale saa waala bañ na jàppante nañ. jàppante nañ ñoom ñaar. parce que ni may wax ak yéen arène nationale mi ngi tëgg loolu lépp soo doon ko xoolee yokkute làmb la macha allah. ndeela mbir xiraan seen ndeela cay ndikk cuun eh eh jël am na jël am na ñoom ñaar waaw ah, Boursin da nga tere song tànk wala. ndeysaan lamb gi noonu. da leen contact. capitaine mi ngi bëre capitaine seen ndeyjoor xaar rek capitaine macha allah léeg-léeg la gis si ginnaawam ay supporteru capitaine la daal duy lamb ji macha allah xale bi na bi jël na bi na ko Ndumar bañ biñ koy fax mi ngi Ndumar a ngi door capitaine a ngi génn xoo mi ngi koy fax fax na ko wër na ko noonu la ilaha illallah sum ko ngeen wax man Fallou Saliou ba maa ngi leen leen si ngeen partagé ko Bébé Diouldé à gauche Brise Mer à droite arbitre sifflé na Bébé Diouldé moo jiital tànku càmmoñ moo njool xale bi faalewul kenn de ñu ngi lay too Boy Djindé door na léegi mu dal si loxo bi si loxo Brise de Mer ñaari mbër yaa ngi noonu ba tey Bébé Djindé gauche gauche droite eh Brise de Mer génn na avertissement Brise de Mer ñaari mbër yaa ngi lewtoo ba tey Bébé Diouldé seen càmmoñ Brise de Mer seen ndeyjoor eh Oumy Ndiaye social de mer numéro 2. troisième avertissement Brise de Mer. Bébé Diouldé mi ngi dox ci kaw Brise de Mer Brise de Mer di na tànk bi jël na tànk bi Bébé Diouldé lu mu def daan na ko Brise de Mer daan na Bébé Diouldé Satisfait de notre premier séminaire de formation à la maîtrise de la prise de parole en public tenu à Dakar en février dernier, vous étiez nombreux à réclamer la prochaine édition. Alors, l'opportunité tant attendue se présente à vous. Ne la ratez pas. Paul Mendier Inté Conseil vous donne rendez-vous les 26 et 27 mars 2022 à Dakar pour un séminaire à la fin duquel vous éliminerez votre peur de parler en public. Vous saurez captiver l'attention du public. Vous communiquerez avec éloquence, clarté, force de persuasion en art oratoire. Si vous et impacter votre public, alors réservez votre place et laissez-nous vous transformer en un excellent orateur.